lu bees am ci euh, faatu ndaw bi nga xamante ne euh, moom moo gaañu woon démb foofee nga xamante ne moom mooy ca waxal jàmm quartier bu nekk ca Bambey euh, ndaw ay ñetti ndaw yu doon foo ak mokk doom kenn ki nag daal di tiire ci kaw ay moromam kenn ki ñàkk bakkanam ka ca des daal di amee ay gaañu gaañu moom ndaw boobee ba mu defee lu ni mel dafa daal di ne may kenn gisu ko tax nag waa polis doon ko wër mujj bi nag ñu daal di ko teg loxo ni ki démb ci ngoon ndax ndaw yooyee sax ñu ngi amoon fukk ak Euh, fukk ak juróom benni at jàpp fukk ak juróom ñaari at lu ni mel démb la am ca Bambey xee ak li nga xamante ne moom mooy manifestation di euh, euh, métitlu wala mer ba futu tax askan wi euh, di wàcc ci mbedd mi lenn waralu ko lu dul rek dund gu cher gi te askan wi amuñu kenn ku ñu waxal kon ki nga xamante ne moom moo moom ab enseignant la di chercheur ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru di Ngouda Mboup mu ngi ñaawlu lu ni mel nee na nag njiitu réew mi Macky Sall dafa war a génn ci tekk tekkaaral gi mu nekk kon a daal di wax ak askan wi lu ni mel mu ngi yëkkati euh, niki euh, tey jii ci suba moo nekkoon ganu émission objection ak Baye Omar Gueye département bu Tivaouane ab euh, càcc njur bu métti lañ fa daal di nemmeeku ay nit yoo xamante ne dañoo ay samba booy yoo xamante ne dañoo daal di armé ba ca xol ba ñoo daal di attaqué village bi di bokk si la daal di yóbbu nag ñaari fukki gàtt askan wi nag tiit ci seen kaaraange tax ñuy woote wàllu li buñ ci tegee yeneen i xabaar daañu dem ca biti réew ak wopp bi di coronavirus woy di euh, dugg ci biir àdduna bi gannaaw Chine mi nga xamante ni nag euh, tey jii li mu nit ña faatu ci boobule wopp euh, dépassé nañu lii di ñaari junni ak ñeenti téeméer ci ay nit yu ci ñàkk seen bakkan kon ca Italie tey jii ñu ngi compté li nga xamante ne moom mooy centième cas ci boobule wopp noonee la amee itamit ca Iran nee nañu nag nit ña euh, ñu ngi gën a euh, nemmeeku ni ñu ngi amee boobule wopp di coronavirus daañu ci teg wàllum tàggat yaram jeexal ak euh, xabaar yi gën a fës ci ayu bés bi ñuy génn ak Josette Kali Assane Thioune moo ci technique bi dal leen ak jàmm. moo ne ci kàddu gi ma leen di jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak rajo Sud FM di fi taataane xabaar xabaar yi nag dañ koy doore ak euh, ñii di mool ñetti mool yi nga xamante ne euh, ñetti mool yu Soumbédioune yi réeroon fan yi ñu weesu jeudi bi ñu weesu euh, ca géej ga ñoom nag gannaaw ab seet boo xamante ne seeni morom ñu ngi leen doon seet mujj nañu gis néewu Pape Souleye Ndiaye ni ki démb ci noonu nag lañ ko daal di jël yóbbu ko ca hôpital Aristide Dantec euh, kon ñoom nag nee nañu ñu ngi woyal li nga xamante ne moom mooy euh, seet bi ñoom nappkat yi faree foofee ca Soumbédioune ngir rek mun a xool ndax dinañu gis seen yeneen ñaari moroom yi nga xamante ne euh, ñoom ñoo réer ba léegi te kenn tegu leen gët. ab jéeya daal am fële nga xam ne moom mooy waxal jàmm quartier boobee nag nekk ca Bambey jàmm xew fa ndax ki nga xam ay ñetti xale yu doon foowee ab mokk doom eh, yëf ya dafa daal di mujj ci ab jéeya kenn ka moo daal di tiire eh, ci kaw ay moromam kenn daal di ñàkk bakkanam ka ca des amee ay gaañu gaañu yu metti eh, kon ba mu defee nag lu ni mel dafa daal di ne may kenn gisu ko tax nag waa polis doon ko seet gannaaw gi nag ci lañ ko daal teg loxo niki démb ci ngoon ñoom xale yooyee sax ñu ngi am euh, fukk ak jàpp ñaari at kon lu ni mel ni ki démb la xew ca waxal jàmm quartier ba nekk ca ville bu Bambey région bu Diourbel. Sud ni ma leen ko waxee ci bopp ba mer bi nga xamante ne askan wi dañ koy mer ba futu tax ñi wàcc ci mbedd mi. lenn waralu ko lu dul rek dund bu euh, cher bi euh, kon mu euh, muy mbir moo xamante ne askan wi dañuy mer te ñu am kenn ku ñu waxal amuñu kenn koo xamante ne daf leen di daal di ñëw jàppale leen ci seen souffrance googee nga xamante ne moom la ñu nekk ki nga xamante ne nag ab enseignant chercheur la ca faculté des sciences juridiques ca université Cheikh ante Diop bu Ndakaaru di Ngouda Mbuub nee na nag njiitu réew mi Macky dafa war a génn ci tekk tekkaaral gi nekkee daal di wax ak askan wi nga xamante ne dañoo daal di eh, sonn yile kàddu mu ngi koy yëkkati ni ki tey jii ci suba ci émission objection ak Baye Omar Gueye déggoon ngeen ko ci kàllaamay nasaraan yi ak kii di aji faatu bari ba tey ci wàllum politique bi lañuy des ak ki nga xamante ne moom moom moo yore kàddu mouvement élèves ak étudiants républicains yi nee na ñi nga xamante ne nag ñu ngi leen di tudd ci luubal xaalisu réew mi leer na ko ni njiitu réew mi Macky Sall du ci ànd ak tekk ak tekkaaral te du leen jàppale benn yoon Kalle Wade la teewlu. président de la république moom gis na ne euh, rapport yooyu donte génn moom du koo xam ne si day néew doole kër yooyu nga xam si yoon moo ko fi teg indiwaat ñooñu nga xam si kuñ ci tudd rek président moo la jox doole ba doole ji nga xam ne si ñu koy wax ceew rek nga am ko kon boog comme que rapport yooyu génn cee yaakaar naa ne lépp dafa wékku ci yoon nan déglu rek ca seetaan ci xool fan la wanantu di mujj ay bëtam ca gëm naa ne rapport yi bokk du nuróog li fi jaaroon te ñu jàppoon ne ñuy wax impunité da ci juddoo woon mbirum yoon nag mbirum yoon la ca waa cour des comptes xam nañ fan ak fan ak fan la woowu mën a jaar ba ñi nga xam ñoo jëf-jëf ji bu ñu waree yoon dinañ jàkkaarloog yoon ci itam ku gis président de la république nii mu taxawee ci askan wi nii mu taxawee ci ñi mu mujj fal xamal ne jeex na ci moom muy protéger képp koo xam si fal na la na te ko table ji lépp lu ci war rek liggéey dinañ ko sa def ba képp koo xam ne si da ngaa jël xaalisu réew mi dugal ko foo ko war a dugal yoon jàpp naa ne li ci war dina ko def waaw kenn mësu ko yaakaar ndaxte euh, euh, président de la république moom ku ne gis na ne euh, réew mi gis na ne dañoo jekki-jekki rek ci ñeen sentir ñu ne am na ay prix yu yokku yokkin boobu sax maasewul dañuy gis ne fee yokku na fee waa ngi ne fee yokku na fee waa ngi ne kon du ay yokku yu officiel bu fekkee ne dañ doon am lu daan gis jékki gisatuñ ko maanaam daaw ñu gis ay prix yu yokk président la république góorgóorlu mandat njëkk bi yépp benn prix yokkul mu gérer ko wax dëgg yàlla ba ñëpp kontaan ci kon boog ñoom bu ñu xëyee rek sant na ay prix ngi dañoo gis loo xam ne si daawuñu ñu ba ko gis ak ñu may ko tuuti moom président de la république ndax xam ne ne lenn ñoru ko dul jàmmi réew réew mi nag maanaam bu met na it waaye xam ne gënoon na fee metti ñuy dund tey am na jamono doon nañ lu ko gën a métti ko gis itam fa mu jëlee réew mi ak fi mu ko andi tey yaakaar naa ne nañuy góorlu ba nit bu defee benn euh, ñu sant ko ci loolu bu jafe-jafe ñëw itam ñu ànd ci ak moom ba bis ñëw mu am doole teg ko ci teg ko askan wi président de la république li ko ñor moom mooy Sénégal émergent ba d'ici 2035 fi askan yu mag yi ak yëpp président de la république yóbbu fa Sénégal muy un Sénégal émergent pour parti socialiste di delloo njukkal euh, tey ci dibeer bi ki nga xamante ne moo nekkoon secrétaire généralu parti ba di Ousmane Tanor Dieng génn àdduna fukki fan ak juróom ci weeru sulet atum 2019 juróom ñaari weer gannaaw ba mu làkkoo moom Ousmane Tanor tey nag waa parti socialiste di ko delloo njukkal ca maison du parti ca Colobane euh, nee nañu nag euh, tey ci bëccëg bi daañu amal exposition photo ci ki nga xamante ne moom mooy dundu Ousmane Tanor Tanor Dieng naka noonu jaar-jaaram yile bëccëg sax nga xamante ne waa parti socialiste ñu ngi koy def di delloo njukkal kii di Ousmane Tanor Dieng ñu ngi ko dooroon ajuma bi ñu weesu fële ca Ngéñeeñ di dëkk bi nga xamante ne fa la sokkee ko kon ci noone daal dina woon nañu amal li nga xamante ne moom mooy wàccee kaamil foofee ca ngéngéen ñu fàttali rek ni ki fi nekkoon secretaire général bu parti socialiste di Ousmane Tanor Dieng mu ngi génn àdduna àdduna fukki fan ak juróom ci weeru sulet atum 2019 Sud FM càccum jur bu métti moo daal di am fële ca bokk si la ca département bu Tivaouane ay eh, samba yoo xam nen dañoo daal di ngànnaayu ba ca xol ba ñoo daal di attaqué boobule wilaas eh, daal di fa yóbbu ay jur gu eh, jur yu bëree bëri kon loole ni ki démb la daal di am dañuy daal di dem foofee nga xamante ne moom mooy ca Tivaouane fekk fa Babacar Sow càccum jur gi dafa gën a tarati fi nga xamee ni moo di ñaaxeen commune bu nekk ci département bu Tivaouane foofee ay samba boy yoo xam ni yore ngànnaay guddi ajjuma jëm samedi daal di dal ci kaw dëkkub bopp si la dëkk bi nga xamee ni fa la jaraafu dëkkub ñaaxeen cosaanoo daal di yóbbu lu toll ci ñaar fukki xar ñu nemmeeku ci ñeenti mbotee loo xam ne lii askan yi yeewoo ca bopp si la ak li ko wër jaaxle nañ ci lool di askan woo xam ne nee nañu daal moom nemmeeku nañu ni amatu fii ana naka la mbir mi tëddee ñu déglu ci ki nga xam ne moo di Modou Xabaan si la di doom ci borom dëkk bi fi njëkk am yàgg na fi am waaye ba léegi amagun benn solution daal waaw mbir mi ni mu demee mooy gaaw na gaawaay boo xam ne daal dañuy indaale seen i matuwaay ndax dañuy opéré moom daal xam naa xaw naa yéeme lool lool lool ba léegi jàppagun leen li ci xew daal mooy après it euh, biñ xëyee nag def nañ déclaration déclaré nañ ko après it euh, booba ñu ngi xaar daal ba xam lan la yoon di def ci loolu ñu ngi continuer di topp di def suñuy recherche càcc gi moom day faral di bari ndax it euh, sécurité bi doyut yaakaar naa ki mi sañ naa yor xam ne si ne daf ci a aar ci ñoom yi ñuy sàcc buñ ñëwee buñ la jekkoo yàq la leneen itam gën a jaaxal askan wi ñàkk taxaw gi nga xamee ni nemmeeku nañ ko ci waaye takk dari suñ nemmeekoo ni sàcc yi léeg-léeg dañuy xam fu ñu jógee moo du xabaan si la dinañ am ay preuve yenn saa yoo xam ne si ne danañ ci mën a war nañ ci mën a sukkandiku ngir jàppaleen ndax nit fu mu sàccee ba fa bàyyee carte d'identité feeñ nit fu mu sàccee fa bàyyee lu demee ne jumtukaay ci yenn jumtukaay yi yaakaar naa a a nañ fi moto jakarta ba léegi moto jakarta baa ngi akub saak ay kol la waaw ay kol ak benn pantiloo tey fi bàyyi moto bi dafa yóbbaale caabi kooku moom moo ŋàbbi caabi ji après it biñ ñu gis leen loo xam ne si ne mën nañ cee jàpp askan woo xam ne ñu ngi ñaan nguurug Sénégal rawatina njiitu réew mi Macky Sall mi ni waxoon na ko ci benn conseil des ministres ni daal képp koo xam ne kii jàpp nañ la ngay sàccub jur nañ la daan daan yu metti Tivaouane Babacar Soriñ ca jokkoog yéen pour Sud FM. ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février atum deux mille dix-huit ñaar ak ñett ci weeru février atum deux mille vingt ñaari at gannaaw ba ñu taxawalee tribunal de commerce euh, classe euh, hors classe de Dakar euh, kon tribunal boobee ci liggéey gi nga xamante ne liggéey na ko ci ñaari at yi jugé na ay dossier yu bëree bëre waaye wopp bi nga xamante ne tribunal ba wopp na ko moom mooy amul ay personnel bu doy ngir. ngir rek daal di motal liggéeyam ci noonee dañuy daal di teewlu eh, kii di njiitu tribunal ba di Alioune Ndiaye ci jokkoom ak Dominique Kama. tribunal bi def na liggéey boo xam ne en deux ans quand même lu lu baax la. Euh, boo xoolee ci environnement bi dans la sous-région yeneen tribunaux de commerce yi nekk ci sous-région bi euh, ñu ngi ciy taxaw taxaw bu mag bi ñu koy commencé nous étions deuxième léegi on peut égaler le tribunal de commerce d'Abidjan léegi amatu lenn lu ñu rawee ci euh, en deux de fonctionnement avec des moyens réduits un euh, personnel réduit mais je pense que personnel tribunal de commerce war nañ leen a njukkal ci liggéey boobu ñu def c'est pas facile dans cet environnement-là de travail mais ils ont sorti des résultats yu baax résultats yooyu nit ñi war nañ ko xam en deux ans de fonctionnement euh, rendre nañ dix mille six cent quarante cinq décisions dont deux cent yi banques yi la donc tribunal bu am importance euh, magistrats yi ñoo bëriwul six magistrats ci nombre bi ñu naan dafa bëri trop donc état bee ñu war a seetaat pour xool nu ñuy indilee yeneen euh, magistrat parce que liggéey bi bëri na trop si day gën a yokk logique tribunal bi mooy di waxtaan ak ñi ñun demuñu fii pour juger ndax nit ñi bëgguñu ko ñun dañuy juger ndax ñoom liñ bëgg d'ailleurs c'est le seul tribunal boo xam ne buy rendre décision sax day expliquer décision comme ça ku d'accordul def appel ñun rek ñooy tribunal boo xam ne dañuy nangu parce que tribunal de commerce yeneen yi la ñu wax ñu ne d'accordul ci lii donc tribunal boo xam ne nag waxtaan ak juboo ak ñeneen ñi pour génnee résultat moo ko tax a jóg. ngir rek daal di jàppale askan wi ci paj moo xamante ne dafay daal di jege commune bu yëmbal noor daal dina tabax nag ab post de santé bu mucc ayib ngir rek eh, daal di taxawu askan woowee kon ne nañu nag poste de santé bi eh, ci xaalis bi nga xamante ne moom lañ ko tabaxee mu ngi tollu ci eh, fanweeri million ak ñeent ci suñu koppar boobule poste de santé nag ca Daaru Rahman 2 lañ ko daal di tabax muy zone boo xamante ne dafa daal di sori daal di rukke bu baax a baax kon ki nga xamante ne nag moom mooy meeru dëkk ba. moom nag nee na yile projet nag dañ koy daal di def rek ngir mun a jàppale askan wi te itamit daal di leen taxawu ni mu waree El Hadj Moussa Thiam la ñuy teewlu. Daaru Rahman 2 nekk ci commune yëmbal Nord te di bërëb boo xam ne daanaka daal enclavé na lool foofee tamit daanaka lu bëri wu fa jafe-jafe yooyu muy jànkoonteel boo tax ni na mairie bi daal di fay ubbi benn poste santé bu bees ngir dendale askan wi ngir gi mën a faju saa buñ ko yittewoo daaw da Ndiaye bi nga xam ni moo di maire bu commune bi moo ko biral gannaaw ba ñuy amal ubbite gi. Daaru Rahman 2 dafa nekk zone bu sori boo xamante ne dafa nekk ci beneen côté bi ci Yeumbeul maanaam euh, suñu frontière ak Wakhinane Nimzatt dañoo xool ne amul benn infrastructure sanitaire maanaam dara luy wane ne boo am paj mën pour ñu lijjanti ko c'est euh, dafa jafe woon ñu jël nag poste de santé installé nañ ko fi dafa leen ko fi ngir mu jege population yi li ñu rek mooy def poste de santé boo xam dafa jege population yi génne na lu toll ci fanweeri million ak ñeent di tabax poste de santé ak ay services am waaye defar logement bi ci kaw ba pare def équipement bi li si ginnaaw ambulance la bu ñu jëlee woon dëkk bu ñu wax Livorno enclavement bi nag mu doon loo xam ni askan wi ba tax ni nag ñooñi di sàkku ñu gën leen jàppale ci ay tali foofee tamit maire bi mu ngi fay dalal xel yi doléance yi population yi bokk na ci tali bi tali bi nee naa leen yàggatul parce que euh, li dans le bi du Promoville bi jaar na Asegna waaye war naa wër Asegna donc euh, phase bi njëkk bi moo nekkoon traversé Asegna bi waaye ci deuxième phase bi ci Promoville tali bi dañ koy jël en compte te allah bu dul tamit di BRT bi ñu jël en compte kon incha allah doléance boobu léegi mu dem. rax ci dolli sax xam ne ni daal ay aménagement paysager dinañ ko gën amal nag eh, ci bërëb yu bëri si biir commune bi loolee nag ngir gën a ñoŋal li nga xam ni moo jëm ci wàllu alam bi. place publique bi nañ dëgg eh, dañoo war a ay place publique eh, un peu partout dans la commune. xëy ñuy def ba installer place publique yu ba yu bëree bëri comme ni ñu ko jéemee fii fii nga gis si ginnaaw place publique bu ñu tabax pareegul ak yeneen yeneen yu ni mel euh, ci bi. maire commune bi xamle ni benn stade municipal bu bees door nañ ko ci fan yi loolee nag ngir gën a mën a téye xale yi nga xam ne rek daanaka dañuy dem ba Pikine rek ngir amal fa seeni nawetaan ku doon joti xibaar yi fii ci Yeumbeul Nord El Hadj Moussa Thiam pour rajo Sud FM. ngir rek daal di ñoŋal euh, nekkinu askan wi fële nga xamante ne moom mooy ca Sédhiou mouvement waaw ngir rek daal di. topp nag li nga xamante ne moom mooy euh, euh, ñoŋin euh, ñoŋal ask li nga xamante ne moom mooy nekk waayu askan wi foofee ca Sédhiou ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy mouvement action solidaire dañoo daal di jël ay poubelle daal di ko jox askanu quartier Santoso ca Sédhiou action citoyenne googee ne nañu nag li ñu bëgg mooy daal di ko wëyal gën a jàppale nag askan wi foofee nga xamante ne moom mooy ca Sédhiou dañuy daal teewlu kii di Moussa Dramé. ngir ay leeral la gannaaw bu mu amee woote boo xam ne njiitu réew mi Macky defal na ko ngir ñi set setalaat bu baax lépp loo ne si dafa jëmee ci taxawaay gox yi tax na it ba kuréel gi di mouvement action solidaire ñu gën xam ci MAS te kii di ministre conseiller Jean Pierre Senghor jiite ko it nekk secrétaire conseil national à la sécurité alimentaire am na it naka démb ay poubelles yu toll ci juróom fukk ci lim ñu jébbal askan yoo xam ne ñu ngi fekk baax ñu ngi ko taxawal léegi mu ngi am presque ñetti at. ci li ñu jublu mooy jàppale population yi. kon moo tax euh, tey ñu nekk di joxe poubelles yi nga xamante ne moom la ñu indi. ngir seetal suñu gox. nekki nii dafa war a changer. juróom fukki poubelles la ñu indi. ménage yi nga xamante ne ñoo longé benn rue boo xamante ne foofu la ñuy faral di sànni mbali. gannaaw bu ko dooree ci quartier Sante Sou ministre conseiller Jean Pierre Senghor ne ne dina ko yaatal ci dëkk biit lëkkaleeg mairie bu Sédhiou. dëkk nag dafa am nu muy doxee. mairie mooy doxal mbirum euh, mbalit loolu ñëpp xam nañ ko. loolu moo tax laata ñuy dugg ci liggéey bi maire yi lañ jëkk a bind moo tax bataaxal boobu ma ma ma ma yebal ko ko pour ne ko da ñuy yebal nit koo xamante ne moom la ñu war liggéeyal ci mbirum euh, poubelle yi poubelle yi nag dañ ko dooree sant su mais bëgg nañu daal ak maire bi ñu liggéey pour que Sédhiou yëpp kër bu nekk mu am poubelle. ñoo xam ne ñoom lañ ko jébbal ñoom ne nañ bëgg nañ lool ci taxawaay bi nga xam ne si dafay gën a setal gox bi gën leen yéewanal wàllu wér gu yaram dañ ci teewlu soxna si di madame Diatta maam tuuti Jali Kadram. jëf boo xamante ne daf ñu kontaan parce que balaa ngay am dara boo amee wér gu yaram am nga lépp ñu ngi koy gërëm di koy sant. ñi fàttali ne rek mouvement action solidaire ñu gën xam ci masse ngi taxaw temm fexe ba lépp loo xam ne si dafa jëme ci wàllu développement lu wër soxale gox bi it ñu gën ko fësal dugal ci seeni loxo bokk na ci wàllu njàng mekk njàngale mi wàllu wér yaram itam dimbali néew ji doole it waaye tamit lépp lu jëm ci lu setal ak aar jéew ji ki son jokkoo si yéen Sidiou Moussa Dramé su def Moussa Dramé mouvement action solidaire daal di taxaw temb rek ngir daal di ñoŋal li nga xamante ne moom mooy nekk waa nekkinu askan wa foofee ca Sédhiou tax nag ñu daal di yëkkati ay poubelles yu bëree bëri daal di ko jox waa quartier Santoso foofee ca Sédhiou nee nañ nag lu ni mel daañu ko wëyal ci biir commune ba yëpp jot na nag ñu daal di dem ca biti réew yër la nga xamante ne moo fa xew. kon ca biti réew boobee dañ koy daal di doore ak euh, Mali mi nga xamante ne dafa daal di lëkkaloo ak euh, Niger euh, ngir rek daal di amal ay opération anti terroriste ci noonee nag ci la ñu daal di teg loxo ay terroriste yu bëre bëri ci diiru weer bi ni ñu nekk. kon mu nekk loo xamante ne lu am solo la foofe eh, ca diggante Mali ak eh, Niger kon eh, ki nga xamante ne nag moom mooy Sori Ibrahima Maïga di suñu correspondant ba nga xamante ne moom moo nekk foofee ca Mali dikkoon na ci ci loolee nga xamante ne daal dinañ ko teg loxo ay terroriste kon déggoon ngeen ko ci xabaaru nasaraan si ak kii di aji faatu bari wopp bii di coronavirus mu ngi gën a di law ci àdduna àdduna bi Chine ma nga xamante ne ah, fa la sokkeekoo nit ñu bare bare nag daal nañu ñàkk seen bakkan ni ki tey ji nag bu ñu limee limba nag euh, dépassé na lii di ñaari junni ak ñeenti téeméeri nit yu faatu ah, ci boobule wopp wopp boobee sax kon ñu ne jamono ji nit ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko daal di amee foofee te Chine dañoo bëri euh, torop kon euh, nu ni mel noonee la amee tamit fële nga xamante ne moom mooy ca Italie lu toll ci téeméeri nit ñoom la ñu gis ni ñoom ñoo daal di amee boobule wopp di coronavirus ci ngir rek euh, feebar boobee daal di bañ a law tax na nag ñu daal di jël ay match daal di ko puus bul ci mel ni jongante bi naroon a dox ni ki tey jii ci diggante. kii di Inter bu Milan ak Sampdoria dañ ko daal di puus ba euh, jëmi jamono Iran yi tamit euh, noonu lañ fa nemmeekoo ay nit ñoo xamante ne euh, daal di nañu amee boobule ñetteelu nit nag daal di nañ ko gis ni ki tey jii ne dafa daal di faatu ci li nga xamante ne moom mooy wopp bii di coronavirus lu ëpp fukk ak juróomi nit nag daal di ci amee ay daal di amee boobule feebar nee nañu nag ñett ñi nga xamante ne ñoom la gis nii. ni ki tey jii faatu nañu ndax boobule wopp dañoo daal di fekk si yeneen juróom yi nga xamante ne ñoom la ñu njëkkoon a gi ñoom ñoom ñoo njëkkoon a gaañu ci bile wopp kon lim bi fu mu toll nii mu yegg na ci juróom-ñetti nit yoo xamante ne ñàkk nañu seen bakkan ci bile wopp foofee nga xamante ne moom mooy ca Iran jot na nag ñu daal di tàggatu yokk suñu wér yaram. tàggat yaram bi football ak Ligue 1 sénégalaise euh, fukk ak benneelu bëccëg bi dañ koy daal di euh, darkap ni ki tey jii union sportive bu Gorée moom mooy laalek Casa Sport bu 17 jotee ca stade municipal bu Mbaaw ci boobule waxtu nag euh, stade de dina laale ak CNEPS bu Thiès ca stade Caroline Faye Mbour Petite Côte moom dina dalal lu dina dem ca Louga fekk fa kii di Ndiambour bu Louga Ligue 2 bi tey la ñuy daal di jeexal ñoom it seen fukk ak benneelu ñetteelu bëccëg programme bi nag nii la tëddee Africa Promo moom mooy dalal union sportive bu Wakam bu 17h jotee ca stade Lat Dior bu Thiès ci boobule waxtu nag Kër Madior moom daa jongante ak kii di Amitié FC ca stade Fodé Wade euh, ca Ngalandou Diouf euh, Port euh, dina dalal Duc ca stade wadd wadd Linguère moom dina laale ak Demba Diop FC ca stade Ibrahima Boy bu Guédiawaye Guédiawaye football club moo fay dalal EJ Fatick dañuy daal di yër nag xabaar yi gën a fës ci ay bés bi ñuy génn ak Josette Kali dal leen jàmm ci jotaay bi fësal xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci sude FM dañu koy dooreek Abiboulaye kamara nekk ab taalibe bu am fukki at ak ñett ñàkk bakkanam ca Louga moom nag jàpp nañ ni dóor ak gaañu gaañu yu mu jotee ci ustaasam moo ko faat leeral yi ak Lamine Gueye Samaan muy coow lu rëy li nga xam ne ñu ngi koy waxtaanee fii si biir Louga benn taalibe ñu koy wooye Abibou Camara moom moo ñàkk bakkanam si li ñu wax nag ñu ni sëriñam moo ko dóoroon dóor yu metti sëriñ boobu tudd Abdoulatif Cissé moom taalibe bi di Abibou Camara doon si école coranique jëm si yàlla Adja Mbayang Cissé nekk si quartier Coxna garaaw ba nga xamee ni dafa dellu seen kër gis nañu daal yaramam neexul woon lool ba nijaayam laajee nag si la wax ni sëriñu daaraam daal moo ko dóor dóor yu metti néewu taalibe bi nekk si hôpital régional Amadou Sakhir mbay bu Louga si yenn si jóge dossier bi wax nañ ni daañ ko yóbbu si lu mu gën gaaw fi nga xam ne mooy Ndakaaru ngir amal fa autopsie si xibaar yi ñu amee ni sëriñu daara bi di Abdoulatif Cissé takk der yi jot nañ koo déglu laata ñu koy laata mu dellu këram. desandi ba tey ci boobee mbir ndax autopsie bu ñu amle woon fii ci ndakaaru moo fësal ni ay gaañu gaañu ci bopp bi moo wund génn àddunaam ñu fàttali leen ni kii di Abdou Latif nekk oustazam mu ngi ci loxo yoon. ci fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru février gi ñu ne le syndicat bu routier yu Sénégal yi tàmbali ab banku loxo boobee grève li ko sabab moo di ñàkk déggoo seen digg ak état bi secrétaire général bu syndicat bi mooy ñaawlu ñàkku pas-pas bu nguur gi wone waaye it di addu ci fukk ñaari ponk yi waral seen ñaxtu googe góor a xuma xamal ne ñun dañuy dem grève grève boobu ñuy dem nag taxawul nag ñu ne dootuñu waxtaan ak kenn suba bu ñu woowee ci négociation pour la série suite continuer ko ba bu ñu amee accord signé gouvernement mais tant que amuñu accord wax ne bii dañ duñ dem grève l' essentiel na continuer mais ñun daal loolu la ñuy xaar ñu matérialiser accords yi par des signatures mais li nga xam ne tey ji moo des ñun mooy amuñu accord écrit boo xam ne bii tey ci bët saalumu réew mi étudiants yi nekkee ci université Assane Seck ñoo tàmbali ci alxames bi bànkub loxo boo xamante ni amul app li ñuy lu mooy ni ñuy jàngee ci boobee bërëb waaye it boole ci li ñu dakkal tabaxu chapito yi ñu teew lu ci Ibrahima Diouf. illimité moom jeexal nay wax lépp luy jàng si condition yi nii nañ ko arrêté parce que du suñu coobare ñun biñ joxee emploi temps yi emploi temps yi dañoo seetlu emploi yooyu c'est des emploi temps qui sont prématurés def cours nga ñëwaat encore defaat cours léegi nag suñu commission pédagogique bi ñu ko xaymaa ba toog ce qui veut deux ans lañ nar a def pour mën a pare première année ak procédure yëpp pour xaar ñi dem rattrapage ainsi de suite loolu yëpp bi ñu ko calculer dina beesu ñaari at daf ñoo mujjee def ndax chapiteau dañoo yaakaar nañ ni ñu ko waxee ñoom pour ñun maanaam du mot sax un mois waaye tey chapiteau yi ñu gis nii weesu na ñaari weer léegi noonee lañu ko nemmeekoo ca ndar it étudiants yu nekkee ci université Gaston Berger ñoo tàmbali bu ñaari fan yoo xamante ni dañuy banque seeni loxo ci lépp loo xamante ni ay njàng la waaye it tàmbaliwaale ñeenti fan yoo xamante ni dañuy dugg ci restaurant yi lekk ba noppi lu ñu wone ticket lépp jëm si li ñuy ñaawlu ñàkk wàcc woo bu jëwriñ gi ñu dénk wàllum njàng mu kawe mi di Cheikh Oumar Anne te it di sàkku ñu yeggali ci nim ko gën a gaawee chantier yi ñu taxawal foofu waaye tàmbali liggéey yi ñeel assainissement bi njiitum réew mi Macky Sall jël na dogal ni léegi duñu ti benn oto ngir képp nit koo xamante ni da ngay liggéeyee ci nguur gi ngir mën a wàññi dépense nguur gi ba jëmmi jamono ginnaaw bi ñu rafetloo bile dogal société civile ñoom seen xel xaw naa tey ci njeexital gi ñu teewlu ci Abdou Aziz Diop di vice coordonnateur bu forum civil. su dee ci principe bi rafet rafetlu ne li président wax ni pour ñu yaxanal mais xam nga principe bi am na ak réalité bi réalité mooy li ñu gis que passé dañu gis ne xaalis bi dafay dem fu warul dem c'est-à-dire dafay poser problème d' abord des ressources de la répartition inéquitable ñii di séddu à travers peut leur poste ou travers leur posture à travers l' état ñeneen ñi tey askan boo xam ne ñu par exemple ces véhicules dont on parle am na ci tey communes yoo xam ne qui n'ont pas d' ambulance des services de l' qui ont besoin de ces véhicules pour faire leur mission mais président de la République institution budgétivore yi ñu def audit réel donc dañu gis que ni daal état bi ñu bëree bëri dañuy utiliser les moyens de l' à des fins personnelles qui de l' état plutôt mais servir ñu état tegu doj bu njëkk ca jam ñaajo bu complexe sportif bi ñuy duppee stade du Sénégal bile jumtuwaay li ci gën a fës bokk na ci ab stade de football boo xamante ni dina am lu toll ci cinquante mille places projet boobee financement bi xayma nañ ko ci lu ëpp téeméer ak juróom fukki milliards ci suñuy koppar ubbite bi ñu ngi koy di ci ñaar fukki fan ci weeru août atum deux mille vingt et Donisia Sambou. fii ak fukki weer ak juróom-ñaar Sénégal dina dalal complexe sportif multifonctionnel ñu nar ko dippe stade Sénégal njiitu réew mi Macky Sall di dellusi ci jumtuwaay bi. infrastructure sportif moderne bi nga xam ne nag day wuyu ci norme FIFA dina am naan stade football juróom fukki junniy place waaye tamit euh, système boo xam ne moom mooy koy may ndox ak courant dina am tam d'entraînement boo xam ne naan ñaari junniy place ak tamit piste athlétisme bépp jumtuwaay boo xam ne dinañ ko soxla ci jeux olympiques yi dina am itam ñetteelu terrain de football. de tous les équipements nécessaires à téeméer ak juróom fukk ak juróom benn milliard ci suñu xaalis koppar gi ñu nar ci bile stade njiitu réew mi Macky Sall nag jàpp ne ndawu Sénégal rawatina sport sénégalais nag amuñu njëkk rax ci dolli suñu réew mérito na am jumtuwaay bu yees waaye tamit bu moderne tegu ci norme FIFA. Ce complexe bi nga xam ne nag amul fenn ci sous-région bi maa ngi félicité président directeur bu mi nga xam ne nag ful la rek lañu ko xamee ndax bu fekkente ne dafa joxe date rek da koy respecté waral euh, Céline maa lay jox rendez-vous ñaar fukki fan ci weeru août 2021 ngir inauguration bi incha allah. fédération incha allah. ci fàttali jeux olympiques JO 2022 nag dinañu ko amal ñaar fukki fan ak benn ci weeru octobre jàpp juróom-ñeenti fan ci weeru novembre président Macky Sall woo ministère bu ñu dénk wàllu tàggat yaram ak comité national olympique sportif sénégal yi ñu xàccandoo doorandoo ngir Sénégal mën a am athlètes yi gën jam ñaajo Denisia Sambo pour Sud FM. fii la ndar keppe jotaayu xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci seen rajo dig daje dibéer bi di ñëw. fanweeri simili moo bootu ci benn waxtu ci euh, bëccëg xabaar yi fii lañuy ñuy yem waaye laataa ñu yëkkati jotaay bi ñu fàttali leen di ci gënoon a waxal jàmm ab quartier ab quartier la ba nekk ca Bambey foofe jàmm xewu fa ndax ay ndaw ñetti ndaw ñoo doon foo ak lii di mëkk doom di ab pustale ba kenn ki mujj tiire ci kaw yeneen ñaari moromam yi kenn daal di ci ñàkk bakkanam ka ca des amee ay gaañu gaañu yu métti moom nag ba mu defee lu ni mel dafa daal ne may kenn tegu ko gët police nag di wër ba gis ko teg ko loxo ni ki démb ci ngoon moom ndaw boobee kon police daldi na ko. teg loxo ñoom ndaw yi ñu ngi am fukk ak juróom benni at jàpp fukk ak juróom ñaari at euh, euh, manifestation di ay ñaxtu yi nga xamante ni askan wi dañ koy euh, mer ba futu daal di wàcc ci mbedd mi di ko amee lenn waralu ko lu dul euh, dund bu cher bi nga xamante ne ñu ngi koy euh, dund euh, moo tax nag ñu daal di moomee tali yi ki nga xamante ne nag moom enseignant chercheur la ca faculté des sciences juridiques et politiques ca université Cheikh ante Diop bu Ndakaaru di Ngouda Mbuub nee na njiitu réew mi Macky Sall li mu war a def mooy daal di génn ci tekk tekkaaral gi nga xamante ne moom la nekk daal di wax ak askan wi yile kàddu mu ngi koy yëkkati tey ci suba ci émission objection ak Omar Gueye département bu Tivaouane li muy yuuxu wallu euh, mooy euh, càccum jur gu métti gi nga xamante ne moom moo fa am ay sambabo yoo xam ne dañoo daal di armé wu ba ca xol ba ñoo daal di attaqué village bi di bokk si la euh, kon daal di yóbbu lii di daal di yóbbu ñaari fukki gàtt loolee ni ki démb la daal di am askan wi nag tiit ci seen kaaraange moo tax nag ñuy woote wàllu lii bañ ci tegee yeneen i xabaar dem nañu ca biti réew ak euh, wopp bi di coronavirus nga xam ne mu ngi gëy mi ngi gën a wëy di dugg ci àdduna bi euh, Chine mi nga xamante ne euh, fa wopp bi sokkee tey jii seen limu nit ñi nga xamante ne ñoom ñoo faatu ci boobule wopp weesu nañu ñaari téeméer ak ñeent fukk ak lii di ñeenti téeméer ñaari junni ak ñeenti téeméer ci nit yoo xamante ne faatu nañu ci boobule wopp lim bi nga xamante ne nag ñi ko amee mu ngi toll ci 60 17000 euh, personnes noonee tamit la amee ca Italie itali moom euh, seen téeméer cas boo xamante ne euh, moom la ñu daal di wàññ ni tey jii tax sax li fa feebar bi dugg ñu daal di reporter yenn match yoo xamante ne ci série A bi la ñu waroon ko amal ni tey jii feebaru wopp bi ni nga xamante ne moom mooy coronavirus nag woy di def ay tiitange di indi ay tiitange ci askan wi àdduna si sépp kon lii bañ ci tegee yeneen xabaar tamit dem nañu euh, fa nga xamante ne moom mooy ca tàggat yaram ak li nga xamante ne moom mooy Ligue en sénégalaise bi muy jeexal lii di fukk ak benneelu bëccëkam bi ni ki tey jii ci ngoon waxtaan nañu tamit ci xabaar yu gën a fës ci ay bés bi ñuy génn ak Josette Kali cant ak ngërëm ñal na leen ci ànd bi ngeen di ànd ak rajo Sud FM di fi taataane xabaar Assane Thioune ñu koy jaajëfal ci wàllum technique bi rédaction bi di leen jox dig daje bu deux heures jotee xabaar yi ci tënk lay doon ci kàllaamay tubaab ak kàllaamay wolof wolof laata boobu ñu leen di ñaanal ngeen nekk ci jàmm.